mbokk yi ba tey ñu ngi taxaw kenn koo xamante ni kenn du ko présenté muy Tafa Kandji Tafa Kandji ku ko xam-xam Boy Niang mu nekk ci organisateur bi ba tey ci suba ba léegi maa ngi koy gis mu ngi nekk di dugg a ko génn Tafa maa lay nuyu di la siyaar bu baax a baax. waa Ba Djili maa ngi lay fay borom wasaare sa sañse rafet na macha allah taalibe Serigne Saliou di nuyu waa Wassare yëpp na ah li ko daggee ci directeur bi ba ki ci gën a ndaw di leen jaajëfal yéen tamit franchement di rafetlu seen liggéey parce que comme ni ma ko waxee woon démb seen direct rek bi ñëwee yàggul mais am na lu ngeen apporté ci làmb parce que mbir boo ci nekkee soo yokkoo rek da ngaa wàññi mais yéen macha allah a yal na yàlla defal leen jàmm sit bi li ngeen ci bëgg yéen a ko xam yal na ci suñ borom def lu suñ njort seen njortu di nuyu waa axlu làmb yëpp nag di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan timit yàlla na jàmm yàgg Sénégal. Mhm. dañoo gis ni woote bi dafa mel ni Tapha démb bokk ngeen ci ñu doon daje di waxtaan waxtaan bi ngeen fa doon waxtaan waxtaanu lan la. waa mooy situation làmb actuelle fi mu toll. ak pandémie bi nga xamante ni deuxième vague bi ñu ngi koy commencé di dund fii ci Sénégal. ñun ñëpp gis nañ ne impacté na ci làmb ji. mais nag gars yi ñooñu waxoon nañu nañu vivre avec le virus. am na ci secteur yu bëri yoo xamante ni ñi ngi dund ak virus bi maanaam mooy teewul seen ay activité ñu ngi koy doxal mais pourquoi pas làmb làmb waru ci des ginnaaw facteur la boo xamante ni li mu njaboote dafa bëri te ñun ñoo ko moom jéegaane wuñ ko fenn tekkaaral bi yàgg ñu toog waxtaan ñu ne pourquoi pas ñu woote def benn point de presse tout en respectant nag mesure barrières yi distanciation sociale bi gel antiseptique yi masque yi ak yëpp waxtaan ba xam nan la ñuy mën a def ba décanter tamit làmb ji parce que il est temps waa mbër yi sonn parce que ay père de famille lañ ay responsable lañ yoo xamante ni dañu dafa am ñu top seen ginnaaw te feebar bi xamuñ kañ la fiy jógee looloo waral tey ñu woote ñun ñëpp du yëfu booy ñaa yëfu làmb la parce que intérêt commun la du loo xamante ni intérêt personnel la ñu woote ñëpp nag waa axlu làmb ñëpp composant yëpp woote pour ñu waxtaan xool ba xam na la ñuy def ba trouver solution ci loolu loolu moo sabab waxtaan bi tey. li ma li ma gën yéem mooy tafa ku la xam-xam sa diggante ak Boy Niang mais dafa mel ni intérêt bi ngay défendre du intérêt Boy Niang mais intérêt làmb la wane nga ni xale yi bëre yëpp say rakk ci nekk ak say frère. non lamb moo toll foofu làmb moo tollu foofu parce que Boy Niang ci làmb la nekk. donc su fekkente ne dama bëgg a défendre intérêt Boy Niang kese bàyyi bu làmb intérêt lamb bu suuxee intérêt Boy Niang dootul jëm kam ko dootul jëm quoi te xam nga làmb comme ni ma koy faral di waxee sport la sport ji li man dama gëm ne. dafa war di boole mais warul taxalee ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay billaay walaay man ay géejawaay parcelle Euh, aw ma fenn sens interdit ay nit laa fa am moo tax man su may wax de manière général damay globaliser quoi damay wax ci làmb mais pas euh, ci Boy Niang parce que Boy Niang ci làmb la nekk donc su ma waxee ci làmb Boy Niang mi ngi ci biir waaw. ma lay jaajëfal bu baax a baax. Euh, mais le plaisir est partagé yow sama waay nga ba pare ñu bokk ku tedd ki te mënuñ koo sédd jaajëf baay ji la jaajëf. jërëjëf.